mbàkk war na mbaam der caam nee na garaawul léegi ma woo kon sopp bu ndaw wootal faa ñu ñëw taxaw fii ñu wax ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñuy seetaan wool kenn rek wool kenn bu ndaw kooku moo dem sox moo dem njëkk yi moom dafa doon loolu bu bëri mbokk yi ma war Talfa daanaka ñu xaar kàmbale yi nga xamante ni ñoom lii loo xam ne suba bi mu ne stade bi ñu commencé bi mu ne ñëw la baax na am solo nekku si da nga toog yow da nga sumb Nossa, só vai. Sim, olha, eu não tenho que Ainda você tem que Só muito ñooñu mooy ñu nekkul ne di nuyu ñëpp teew suñu père Thiam ak promoteur bi Mourou Baye. xoolal caméra di nuyu waa Pikine baax nag di nuyu waa ginnaaw raay mu jóge waaw di bëgg gars yi toog yëpp nag di nuyu sama père Matar Ndiaye ak sama nijaay Tons allo sama gàncax sondeel suñu grand waaw di bëgg waa Pikine yëpp di bëgg waa ginnaaw raay yëpp nag. ay ca Talfa waa li la wax bisimilah a ina wane yàlla xoolal waa moo sant yàlla julli si yonent bi di sant sama ñaari waajur di sant sama papa ak sama yaay sama yaay dama koy sóoraale su bari moo tax tey jii sax xam nga ma gën a suivre làmb mais bu nekk woon moom xam amaana mooy loolu mais kii hmm. di ko wax ni kii dañ ko suuxlu maanaam dañ ko suuxlu mais dama xanaa seetaanoo xale bi combat bu muy yëngu seetaan naa la ak jaasi ko waaye seetaan nga xale bi combat bu muy jubbi ak Petit Lo nga ne ko dama lay coow. dama ne la gisuma ko gisuma. dama ne la kii kii du fee du du dossier sax. nee na doo fee doo doo dossier. non loolu ay waxul làmb la rek. lu mbër moom maam soo tasee moom. maanaam day xool nu mu la mën a déstabiliser rek pour déstabiliser la quoi mais man daaru mbëri nii man mënuñu ma déstabiliser quoi ndax man li ne sama bopp amaana man si loolu laay concentré wu man du ay waxu xel loo xam ne waru ko def ma war def dama koy def te moom bu soobee yàlla incha allah dinaa ko daal bu soobee yàlla. xoolal doomu Mboor laa doomu Cambérène doomu Parcelles doomu Grand Yoff bàyyi ñu ma yaakaar dafa bari de liy topp sama ginnaaw dafa bari de. te caaxaanu ma làmb kii maanaam mu la xam na ko doful dof dof lu wul. Hmm. kii dañ ko forcer làmb man juddu ma ay pegg bëre di bëre ma damay bëre ba may bëre booy bu ndaw laa dama naan tëdd ba guddi ñu yeesi ma may bëre ay biskiram cent franc xam nga nekkul nag ay jaam gën a xam ñu dugal ma si làmb de kii bu arbitre nee piip kii leneen la muy xam nga seen waa gaal yu ay cabaxal yooyu noonu fàttal ma foofu la kii du tuus. wala boog ko acca non c'est vrai muy wax ay waxu saboté la ay man du ma xaas ndax dama ko jox cër quoi ndax su dul dara lam moo ñu boole te lii après day jeex moom mu ngi wax ay waxu man su ma waxee seen waakar ma dépassé mbër man maa ngi moom ñoo am lam a bëre man ak wax ni da bàyyi ba noonu moo gën muy nekk nii di wax dañ laa nax de dañ laa suuxlu jox la combat waaw na wax lu ko neex mais man sama bopp man maa jëlal sama bopp combat maa ko bëggal sama su ma naree jàkkaarloo góor di am lu may xel ñaar ma bàyyi ayca wëlbatikul xool waa parcelle fii. dama ni la waaw. le 17. le 17 bu ma fi yaabi taxawee ba ma xool leen ba ma ni leen bakkal fii lay des. donc hmm. man ngay ba réew ngay jaaxaaroo leen talfa géemeer bi dinaa la géem ba géem li si ginnaaw booy du mën ak yow. booy ñu may bëreel ñoo la pour doole fuuf ci lamb simple kii xam na lu may wax. dool la oos. am na lii may bëri ay ñaata leader. kan mooy diriger kan mooy diriger. bu arbi ne piip ma dox si kawam dóor ko jàpp ko daan ko bu soobee suñu borom muy maye. day wax lu ko neex rek day wax lu ko neex samedi wuso bu dellu seel incha allah yaagatul arbitre bi siffle dina génn li muy wax ni ay rëccu lay doon si moom de yàlla xam na loolu dina ko rëcc kii bu arbitre bi siffle ma daan mënu si dara moo ngi nii taxaw bu arbitre bi ma koy daan par force la mënu kaay yàlla yàlla ànd ak man mënu ma si dara yàlla mënu si dara waaw di woo waa Mboor rek di sant mafia fu mu boo yi may àndal aw ma seen fay ñëpp xam nga kaaw libaas wërëb diw xam nga dóor waar xam nga mafia fu mu ne Grand Yoff jël maa ne aw fay barke si Ahmadou Bamba chaque jour seen xaalis dañ may yónnee xam nga ku nekk si nattu du la yónnee sa xaalis yéene na la ku si mel na Lom Tóore ku si mel na Calle ku si mel na Cheikh Colobane xam nga Sambour 10 Sambour 9 ñëpp ay Yunus Papa bu ndaw ñëpp maa ngi leen di xam nga ñaani egsi na di ma wàcceel kaamil di ma defal lu ne te ay jël mais maa ngi woo mboor mboor yëpp mboor mboor yi mboor di woo sama waa dëkk Jinaax nii di woo waa voilà père Modou Bey père Modou Bey ñu ngi jaar kii mooy lam responsable ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay nuyu bu baax Baye Balla maa ngi lay nuyu Modou Anta waaw père Modou maa ngi leen di di nuyu presse bi yëpp déedéet du noonu de déedéet waaw motu fil bi. waaw ñu ngi waaw waaw fair play. fair play fair play. Eh. waaw waaw ñaari waaw ñaari doomu ndey ñooy bëre. waaw waaw ñaari doomu ñu ngi leen di nuyu bu baax di nuyu presse bi bu baax a baax di leen siyaare. di nuyu Momo production. muy Modou Baye Fall. moo ñu woo fa moo ñu woo tey. si arène bi. signature contrat Talfa. mi ngi génn mi ak sox bu ndaw. Mm-hmm. waa di ko nuyu bu baax di nuyu Fallou waa di ko siyaare bu baax a baax. Balla di ko nuyu bu baax. Uh-huh. Balla Kaye déedéet fii laa fii waaw Kaye ci digg bi ci ñu ngi ñu ngi waaw waaw ñu ngi ñu kontaan bu baax ñu ngi leen di nuyu waaw. Talfa Baye Fall waaw Baye Fall ñu ngi ñu ngi jégalu ñu ngi jégalu. Uh-huh. waaw yéen doomu day ngeen. waaw yàlla moo leen boole. waaye lamb ay espoir lañu te lamb ju rëy la lamb ju neex la lamb amateur la kon ñu ngi nuyu président Gora di nuyu association des amateurs de lutte di nuyu Modou Baye Fall di ko di ko encouragé di ko wax xale bu am jom la xale bu baax la xale bu am kilifa la def naa ngi jëm troisième journée kon gàcce ngalama Modou Baye Fall bu moom production ñu ngi kontaan si moom dañ koy ñëwoon tey rek pour teew pour wax si moom na ko lamb bàyyi xel am na jom nanga noo liggéey bëgg na lamb avancé ñaari xale yi tey muy diggante Talfa ak ak soq bu ndaw ñaari doomu ndey lañu ñaari war lañu bu duñu yàq làmb kon booy non à la violence bëgguñu violence ndax ki tëgg lamb ji muy Modou Baye Fall xale bu yaru la xale bu baax la te dafay développé ci lamb ji kon nañ ko bàyyi nañ ko bàyyi xel bu baax a baax dama ñëwoon pour pour sant ko